sigil te weytoo madru yi tuub nan ci bu wér te bul faale ka wuy ka farjaki Moustapha su fekkoon da ngay laaj carte say candidat wiiw na yaawat ña daawoote ña sigil te weytoo madru yi tuub nan ci yow bu wér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 nee na di sant yàlla itam ci boole giñ nu boole ci sëriñ tubaa ñu nekk ay taalibeem nee na ñëw fii nag ci guddi ku tedd gii nga xam ne ci la sëriñ tubaa tànnoon ngir dëkkaale ak boroomam ndax moom bàyyi ko wu fi jóge fii fi te du fi jóge ba mukk kon bis bi mu ñibbisee tubaa lañuy wax te muy lu mu waajaloon bu yàgg. Cheikh Mouhamadul Mountakha keroog bi mu koy tàggu di dem jaareem ne ne ko dafa bëgg a dem jaareem siyaare ji ko ngir wétli waa dëkk ba ak ànd ak ñoom dund ko mu dem fa altine alxemes moom mii mu fekk fa Cheikh Mouhamadul Mountakha mu ne ko kat bi may ñëw damaa ñëwoon rek. ngir liko war mom Cheikh mamadou Muntaxa digam ak wa Njaareem waye nee dafa dik am lu ko fi dug mom serigne bi muntaka. Cheikh muntaka neko serigne Muntaxa ne ko li ma ba fess ci sama xol modi di fassiyene li fek ma nga ci kaw souf fu tam xarit bi dugate ma nek ko ba ñibbi ci sëriñ bi dess ñetti fan ñetti fan yoyu nak neena na ñibbi gi sëriñ bi ñibbi ci won Touba mom lay wajal diko dundu moy jang me ñepp diko gis mu diko mu def tay ji ci keur serigne Touba ga mu ne yëgalu ko kenn waxu ko kenn waye lolu pastefu bopam lu mom Cheikh Mamadou muntaka muy muy muy lu muy dund digam ak serigne Touba. mu ne ba ci guddik tey gii nag daf ko daf ko fa fas yéene fanaane ànd ko ak ñi koy yëkkatil xasida muy waa Hizbut Tarqiyyah mu dundal ko ba fajar gi jiite nit ñi door a tàggoo ak ñoom kon loolu jeneen taw féex la ju ci dolli kuwaat ci alxames jooje itam yàlla def na waxtaan nañ ci sëriñ Ousmane Mbacke moom sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma mii waxtaan wu xóot wu yaatu mu seere moom sëriñ mu Mountakha ci sëriñ Ousmane mii seere soo xam ne doy na sëkk seere ndax li mu ko waxoon démb ne ko li nga daan wax ci Cheikh Mouhamadou Lamine Baara ak Cheikh Sidil Mokhtar maanaam sa genn kàddu moo gën suñ junniy kàddu waaye moom it moom Cheikh Mamadou Muntaxa seedeem sun seere yëpp tàbbi na ci biir seereem mun Muntaxa wax ko ne ko sëriñ Ousmane day settantal naa ko waaye ku mënoon di diis la te woyofal boppam te xool naa ko ba ci biir itam waaye gis naa ne sëriñ Tuubaa rek a nekk ci moom te raxu ci dara seede pastéefam ak taxawaayam ci liggéey bi kon nag loolu doy na sëkk. jëriñu ci dolli dara ndax ñu ndax sëriñ bi nee na moom li mu xam ci sëriñ Ousmane xam na ne sëriñ Touba moo leen boole. démb nee na mi ngi koy wax bi muy waxtaan ci mbirum organisation màggalu 18 safar nee na daa dem ci njabootu sëriñ Touba gépp ku ci ne mu dem ca kala fa nekkal mu laaj la nga mu nga tànnal ko kenn jox ko ko. sëriñ Amadou Moutar boole ko ak sëriñ Ousmane Mbacke mii nee na boo booba fekk ne sax miinut sëriñ Ousmane ñoo ànd liggéey bi mu rafetal ko nee na mi ngi fàttaliku moom Cheikh Mamadou Bachir ca at mooma biñ màggalee ba ci biir mu yëkkati addiya di ko ko jox ngir sëñ Touba nee na keroog sëñ bi dafa daanu jooy ba dafa tiit moom mi ne ko lii andiwu andiwu ko fi sëñ Touba la ànd laa àndee ak yow ndax lii maa ko fi war a nee na boobee nag ci la gën a xamee pasteefam ba boobaak léegi am na fukki at gisu gisul lenn lu soppi ko ci moom mii nee na kon nag ñu ngi koy ñaanal bu baax suñ borom dëgëral ko te sàmm ko te lii mu sas sëñ yitam itam yàlla na ko ci yàlla gën a dëgëral bam bañ koo wàcc nee na sant na sëriñ bu baax. mbooleem ñi mu seqal liggéey bi itam ci waa organisation ñëpp ko sant ngir xam nañ ne mënu fee ñàkk bu fi néewtoon ba naga ni kon leneen la ñuy wax kon nag sëriñ bi nee na jàpp na ne li alxuraan di wax ne sana sa sana suddu addu daka bi aqiqa sëriñ Touba def na ko ci diggam ak sëriñ Ousmane mii nee na kon nag ñu ngi koy sant jàpp na ne booleek sëriñ Touba la waaye lam doon séentu ci moom lépp mi ngi ci moom kon ñu ngi koy sant bu baax nee na bi muy ñëw mi nga ànd seex Cheikh faadal moom sëriñ Mouhamadul Amine Baara ndax digganteem ak Cheikh Mouhamadul Amine moom Cheikh Mouhamadul Fadal moo tax fu mu ko fekk rek da koy jël yóbbaale ko ndax da koy fàttali ne waxtu wu nekk ma wax ko nee na mi ngi koy sant bu baax. di ko gërëm ndax xam na ne moom itam loolu rek lay xool ci moom nee na di sant tamit sëriñ Cheikh Abdou moom sëriñ Cheikh moom daar moom de moom sëriñ abdu borom dër bi itam moom itam demb rek sëñ bi moom sëriñ tax a waxal na ko boppam Cheikh Abdou mi itam noonu kon loolu tombe la te ñu yéen ñaar ñëpp la ko seereel te déggoo gi am ci seen biir bokk bëgg moo ko waral. mooy du xool sëñ Tuubaa te bañ caa bëgg dara bañ caa séentu dara lu dul payu sëriñ Tuubaa te xam ne moo ëpp doole lépp ndax payu sëñ moom boo xasee ba agsi rek du jeexati ba àddunay tukki te Pastef rek ko indi Mourtala Lo mi itam di suñ doom nee na sëriñ bi nee na mi ngi koy sant bu wér ci Pastefam ab taxawaayam ak yéeneem ak dogu gim dogu moom itam ci and ci liggey bi ak mboolem ñu fi tew ñep serign bi neena mi ngi ñaan di yag fe ñew yag fe fek serign Ousmane mi te sun borom gën ko dimbali li ñuy ñaanale suñ jëm rek serign bi neen ni mi ñaanale jëmam non lay ñaanale serign Ousmane mi ndax ndimbal la ci ci ñom tay wetti leen bu baax ci liggey bi kon ñu koy sante bu baax tiant nak mom dafa ta wessu ak tiant li Cheikh Mamadou Fadal daan wax ne waaw góor baat bu gàtt la waaye ku jëfut nag doo ko dégg nee na kon nag ñu koy sant bu baax te cant gi itam yóbbaale na ci ñëpp yóbbaale na ci mboolem ñum seqal liggéey bi kenn ku ko ci jëppi amut kenn ci itam koo xam ne yab na ko wala mu am dara lu koy xebete amut te fukki at bari na. fukkaat ak benn bari na jiite ko ay nit rawatina say nawle te saa suñ sëyee xëyee seen yaakaar ak seen kóolute di dolliku loolu pàggateef suñu borom la kon yàlla na ko yàlla sàmm jërëjëf ti saxal ko sigil te weytoo madru yi tuub nan ci wér te faale ko wuy seek farjëkki su fekkoon da laaj carte say candidat la yawat ña daawote eh, ña daawaate eh, Mustafa